te amul démocratie interne de. démocratie interne mooy lan. ah kër décision yi ñu koy càmbar di ko waxtaanee ci biir ba le plus grand nombre d'accord ci waaye da di xëy rek ànd ak Macky Sall tànn euh, candidat d'ailleurs sax euh, président Moustapha Niasse moo nekkoon au au centre des des des opérations. bien sûr daf ci bokk. waaw liggéey ci mat ko sëkk ñu wóolu ko ci. ah wax yàlla def na non non loolu liggéey mi liggéey bi kay amul amul ayib waaw gis nga euh, euh, Maymuna li ma ci posé question moo tax nga mës dégg sax AFP wax ci parce que ñu lan yitteelu leen li nga ñuy wax ah manque de démocratie interne li ci yitteeluñu ah bon la preuve communiqué wuñ ci sax mais mbir mi jëwul xëccoo jëgul xuloo maa bokkoon maa ñëw sama bopp xaw ma Moustapha Niass Moustapha Niass duggul sama kër propagande ma xam naa ko xam Moustapha Niass xam naa ko bëgg Moustapha Niass wax na ma ci lu ma doy ma ñëw adhéré bi ma adhéré nekk ci biir parti bi ma xëy ni man mii de yaakaar naa ni bii ambition la am léegi. mën naa am ambition bi ci biir sama parti di APR. AFP mu di ba naan APR di AFP. waaw boo ñëwee poser débat boobu ci biir AFP ña ëpp ci biir AFP nit ñu dey gisuñu loolu ñun ci démocratie de nga ni li ngeen ñàkk gis loolu man lii laa gis dama leen koy imposer ñu ne ko nanguwuñu loolu. ngay jël su cëggal guy dem sa yoon def sa congrès ni yow candidat nga mais li ñuy remarqué tamit tamit à la à sa décharge néewul may candidat AFP de. mais da ngeen ko ko xañ. mais naka lañ ko ko xañee. nangu nangu leen ko li mu dañ ni ñun ñoo ngi bokk mais pourquoi benn nit ci biir famille benn nit même boo dee taawu kër gi nga ni lii la ñuy def caat bi ni noonu duñ ko def loolu ki topp ci caat bi ni du def loolu keneen ni duñ def loolu. waxi taaw la war a déglu. waaw non damay expliquer non. c'est pas parce que yeewu naa man damay nekk candidat parce que sama yëfi bopp la mais et la philosophie du parti et la ligne et la doctrine du parti ngay na ngay na ko fa bàyyi amatul importance sama bëgg-bëgg moom lay jiital et vous dites ça que c'est la démocratie démocratie ma nga samp tànkam ci biir AFP amul instance bu ñuy def boo xam ne bii les gens sont muselés ku nekk da ngay wax. nangu leen débat bi de. nit ku fa ku fa yëkkati débat ñu gaaw isolé la. mais non mais non non da nga naan ñoom ñoo nanguwul la ligne du parti bi ñuy tànn candidat yi dégg nga ci waxi AFP parce que dañu réunion ni jox nañ carte blanche président Macky ba président Macky pare ni diw mooy candidat Benno mais ñu diw candidat Benno topp nañ ci yéen e,